qasaidul kiram yaqulu xadiyal murid lil xaadiril baaxil murid njàngum kuréel cosaan lu wér a wér la te mi ngi tàmbale woon ci jamonoy sëriñ bu mag bi dayob xasaayit ak seen tolluwaay ci liggéey bi sëriñ tubaa liggéeyal lislaam moo tax Almouridiyyah TV jagleel ko émission bu mag dippee ko xasaayidul kiraam njàngum xasida nag liggéeyu saytu bu yaatu te fasanti moo nekk ci ginnaaw danga koy def ci xeetu daaj boo xam ne tey boo yëkkati woon samp ñëpp mën a dem njàngum kuréel baat am na ci solo lool waaye dafa ànd ak definu xarañ ngir dëppoo ak ni ñu ko tënkee. njàngum xasida dafa war a wér te ànd ak ay teggin yu mat sëkk ngir jox wor ma xasiday sëriñ Tuubaa yi. xaadali allahu lisaan al arabi wajaadali fii bi xayril xurabi xaadali allahu lisaan al arabi wajaadani fii bi xayril xurabi jànkatu xasida yi ñu limu lañu ca mag ña ba léegi xam seen dund fàttaliku seeni jaar-jaar lu baax la te am njëriñ ngir ñu mën leen roy xasaidul kiram dellu siwaat ci yeneen anam ak seen télévision Al Mouridiyyah di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche bi.